am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci seen biir woo nañ ma appel vidéo gis nañ fa ma ne kon man du ma triser te yow xam nga man du ma waxantu waaw ah non fanaan nga fu wóor a di nag ah non amul benn danger jàmm jàmm jàmm rek jàmm rek fa ne ah? waaw jàmm rek fa ne am ngeen bis nag yal min bi la bii du yooyu bii du yooyu la xam naa ko bii du yooyu ay sitte bu ngeen yàqoo moom bu ngeen xootee ko moom a feeña déglu leen ko ma leen mën a wax daal mooy yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm rek bañ yegg ci ak jàmm yàlla may ñu tal ak fekke kenn bañ a manqué hmm. bañ duggaat ci biir arène nationale bi mbaa dina mel ne comme yële si te mii ma gis mhm. ak mii ma gis ak a ah, na xam nga ko war ñay ba wàcc ko kon jeex na bis mënatuñoo dépassé ci àdduna mais sot gi nga xamante bi nii axlu làmb yëpp a nga koy wax naan sot day am ci bis bi loolu lañu bëgg Modou ni muy mal malee roi des arènes bi am na ñu mu neexul xam nga nañ ko sot nañ ko sot boo gis ñeme amu fa nañ ko sot boo amu fa ah te ñun ñeme nañ fi ñu jëmit ah sotte kun ko roi des ñun yàgg nañ ñoo sotte daanu wuñ fii yàlla rek a fi ne sama samawaati te ñun moom la ñu àndal mm. ah, ko wax de mais transhumé nag Serigne si transhumé. waaw transhumé ah, waaw. Ah, ay ah, ay ay journaliste. ay mercato mercato man man man ce man ay courtier laa gis de gisuma Serigne de. ay courtier yu ñu transhumé ay courtier dóorkat laa gis man. yow ba léegi de Modou Lo laa ko xamee. <laughs> en tout cas daal no yooyu moom ku ngeen xamee Modou man ma daal bàyyi ma ko xel parce que man li may wax rek man sama bët bii sama bët bii ku Modou amal komba Modou laa koy xool xooluma ko keneen bu Modou amul combat nag mun naa jël sama bët bi ngarale ko fu ne mais bu Modou xasee am combat xooluma kenn Modou laay xool gisuma doole kenn doole Modou laay gis gisuma mënu kenn Modou Modou laay gis. mais li ngay ay papis du ñëw ak papis daa jël distance ak lan la. wax nañ leen ko papis dafa voyagé dafa dem Italie papis doomu Modou la papis bu ñu toogoon ba làmb ji nit ñi gisuñu ko sax moog Modou mënatul ñaaw ci àdduna ndax dégg nga boo xam la wax nii. li ñu seq seq nañ ko ba pare ku xam papis moodoo tax nga xam ko ku gis papis gis moodu ku gis moodu gis papis papis dafa voyagé nekkul Sénégal ndax dégg nga ma sëñ bi ñun ñii nga xam ne ñooy ànd sax sa doom sa doom sax dangay ngay am ak moom problème te du tey da ngeen di bokkaat kër gi nañuy xool yu rafet yi tey bàyyi yu ñaaw yi. man de naa est-ce que Modou sañ na diriger sañ na diriger Siteu daw songu ko. sañ nga wax de sañ. Modou am na lu mu sañu ci àdduna. kooku natt fi li ma bëgg a laaj mooy ndax Modou am na lu mu sañut ci àdduna rek. sama nijaay di ko xoos si terrain bi fii. Hmm. jàmbaar maa ngi félicité waa jàmbaar bu baax a baax. di félicité Mansour Ba assurance sama xarit ak ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi yëpp. dëgg nañ bis boo xamante ni. dana leen dépassé li tax dana leen dépassé mooy danañ gis luñ musul jis seen àdduna. saa yi sa frontière. ci ban xeet ci ban xeet. ci côté yëpp. Mbadou 35 combats ya ñuy wax ya fan yi Mbadou moom fas yéene ñëw keroog. en tout cas daal li ma leen mën a xamal mooy. dana dana dana dana. ay wax lañ doon wër ay wax a ngi nii. namm ngeen ma mais maa leen raw. mais bu ma sañoon ngeen bàyyi bu ma sañoon ngeen bàyyi bañ toog ñu yaatal ndax li ma war a développé man xam naa ne xëjul ci xewu jamaïcain bi non da ngeen waaw uh-huh. man jàpp rek moo tax ma ñëw mais mais man da ngeen gisul da ngeen a ma lay laaj ginnaaw mu la mm-hmm. nuyu waa di nuyu gaay parce que dama la fekk gaay di la mm-hmm. bi mooy ngeen jëm ci combat bu tol nii mm-hmm. des fois ñuy dégg naan Modou ak diw ah comme ñoom niñ ko waxee léegi parce que damay tombé seen ay wax ñu naan Moodu Sa Touba wala ay Moodu Papi saaru wax yooyu ngeen koy dégg te jëm ci combat boo xam ne leer na ki ngeen di bëreel dafa décidé ndax bi ko Moodu ne maa la gën a xotte ko dana ko man xotte ko ma damaa yàqu loolu noonu loolu dina bëgg a dégg jëm ci combat soow yu mel ne du déclenché ci seen côté est-ce baax na waa xam nga booy bëreeg ñoo xam ne ay coowkat lañ da nga leen di tojal ci coow xaw ma ndax dégg ngeen ma wala déet booy bëreeg ñoo xam ne ay coowkat lañ da leen di tojal ci coow moo tax ñu jiitu leen ci coow li bala ñu ñëw coowloo. moo tax ngeen di coow seen biir ah. bala ñaa yegg ca bis ba. a waaw jeex na. mais est que ñi ngeen di bëreel euh, maanaam am na ñi nga xam ne tey euh, Mourou Anta damay dëgg ay nit yoo xam ne adversaire bi joxuñu ko ciir bi war pour man ci ni ñuy waxee parce que dañ naan Siteu mënta daan Modou nangami combat mënta am ci Modou dara yow loolu gëm nga ko yow. waaw xam nga làmb bu lépp jàllee gannaaw yàlla ak yonent bi. mbër moom fii kenn mënul kenn ku yàlla dimbale moo fi ne mm, Siteu amul ku mënta daan ci àdduna waaye dama am gëm-gëm ni la 24 incha allah mënuñoo daan. la 24 mënu leen a daan waaw man loolu laa gëm. maanaam ci mënu leen a a a dàqul dul gën a pare bés ba ba tax mënu leen daan. yéen ñi yéen ñu yor seen i bët di xool sax. waaw maa d'accord maa ngi ñëw ci question boobu laa ñëw yéen ñu yor seen bët di xool sax xam ngeen ne. amul lu ne ci moom lu néew ci waaju lu dul yeel yu gudd rek. loolu rek. mais est-ce que ñi leen yombalal combat bi. non ñun moom yombaluñ dara. combat bu Modou musa bëre bii laa ci gën a respecté. Ah, ndax la ndax waaw. parce que gën geen maa gis xam ngeen yii daaw leen gis ma di ko def. ma ah, ah, gis trop de. deux mois kenn tegu mu bët. te jàmm gi la nekkoon jag saaw. nekk waaw parce que dañoo nekk ci combat boo xam ne. coow li bëri na. wax ji bëri na. te ñi ñuy bëreel dañoo mën bis. dëgg la de ah ko ci te liñ ñuy xaar li ñuy xaar ci ñun dafa bari. dëgg la te bëri na it ñu ñu jënn di bëgg a wane seen bopp. waaye danañ suulu bu soobee yàlla. am na ñu bëgg ñu génn di déplacé wu ngir bëgg ko wane seen bopp di wane na ñoom la te du ñoom. Ah, yàlla la am sëriñ si transhumé de mercato bi. jënd de. nee naa la nee naa du ñuy sëriñ ay courtier lañ. dama ne non non ñun gisuma sëriñ bu nekkoon ci ñun sëriñ bu nekkoon ci Modou mm. du déplacé wu di dem ci sito gisuma ko. ñu bari ñu ne Modou. 28 juillet bi ngeen di jël courant de ci waaw. mais ànd la woon rek. yow mii ñi nga doon àndal daaw àndatoo ak ñoom rek am na ku ne Modou ay sëriñam dañ ko war ci combat. mënut mënut ànd ak ñëpp di continuer mënut ne c'est impossible. mais que ça Touba doole. Mhm. am ma leeral la foofu bul continuer ma leeral la foofu bul continuer maa mën ma ëpp doole. Ah, eh? maa mën maa ëpp doole maa dàq bëri maa dàq xeex maa ëpp fit maa ëpp sañ-sañ. bii ak yële est-ce benn la fecc leen daal may nañ leen fecc mi tuus mi. Siteu ne <laughs> sa Touba. Siteu nee jàmbaar ci takk jamay kee bi laa ñëw bu ngeen ma soxlaa ñuy développé. fekk leen ma sama kër. ah <laughs> ay wax da am na fi. awa ah. ku tee micro ci ngénte Mansour keroog suñu papa asbikaay def ne làmb mu ngay bëgg a changé ndax Modou Lo mi ñu xamoon ci gàllaaj ci préparation ci état de mental boo xamante ni lu ne da ko daan moytu tey Modou ku am xew mu dagg ay yitteem ñëw bi mu ñëwee tey ba yëg-yëg bi nga ci am ak gis-gis Modou bu bees bi ñu gis lan nga ñu ci mën a wax waaw sant yàlla rek d'abord comme ni mu leen ko waxee rek nit amul lu duy nitam te ñeent yi kenn du ko xeebal doomu aadama nit kenn du ko xeebal ay soxlaam nit kenn du ko xeebal sëriñam nit kenn du ko xeebal itam bisam nit kenn du ko xeebal góomam ñeenti yi kenn du ko xeebal doomu aadama muur nag bi mu demee ba découvrir loolu ba xam ko xam ne saa yu amee bis ay nitam sol seen dàll ñëw teewal ko moo tax it saa yu nitam amee bis moom it mu sol dàllam dem teewal ko fii yàlla rek a fi nekk hmm. gannaaw yàlla yonent bi moom xam na ay nitam fu ñu ko féete xam na ay nitam lu ñu koy jariñ moo tax tey xam nga diggante bi moo gën a jege ndax barki démoo Ndiaye man bi ma amee xew bambay gis ngeen ko daa def délégation ñëwaat jamay koy xew amaat ko mu ñëw defaat ko mi ngi def daal li ko war ci digganteem ak ay nitam dañ koy ñaanal yàlla rek wax dëgg yàlla yitte ji nga xam ne moom la moom la jox doomu aadama yi ak xol bi nga xam ne moom la ko yàlla séddee yàlla na ko yàlla fay xolam rek defal ko ndam mais mais combat bi da enjeu combat bi dafa mu toll mhm. ndax ku xam ne ni Siteu mooy Siteu maam dayoo combat bi waaw ñëpp xam nañ ni mhm. Siteu mooy Siteu mhm. foo dem ci àdduna Siteu am na fay supporter waaye Modou fu muy dem soxlaa moo ko fa yóbbu te dara mënu koo taxaw mu dellu non moom dafa am leen loo xam ne dafa ne ci moom ba dara du dara ba léegi mooy gëm-gëm Modou gëm-gëm lay doxee ci addunaam ci lépp ci loo ko mën a gis nag ci adduna looy def moom dala koy wax danaan la looy yëngu te ci gëm-gëm bàyyi ko doomu aadama lu muy yëngu lu ne na ci jiital gëm-gëm gi d'abord gëm-gëm dafa nekk ci moom tey kenn xamu ko ci ñàkk fayda walla ci ragal wala ci triser moo du triser ci dara ci lu mën a doon ci adduna nag sport moom du ci triser soo newoon ñi ne daa daw ñi ne ñimewul tarkindaa yi nga nekkoon man wax naa la def naa jagsaaw 28 jours. fan fan te suñu toogee développé man a yéen da ngeen xam fan laa nekkoon man. jàmm gën wala jagsaaw ci jàmm gën. jàmm gën waaw ah, ah. def naa fa vingt jours. 28 jours ah mais dama fa amoon soxla rek amoon fa samay liggéey mooy war a liggéey ñaari bis ñooma fa dese. à boy génnal sëqal lii kaay moo doongi nel ci ginnaaw kaay leen ñëw leen moo doongi moo moo doongi ci ginnaaw mais siyaare naa la saan bu mbaa bu la Modou xarañ loo sama waaj Modou xarañ loo seer nañ ci loo ne dalo seer alhamdulilah ci jàmm ba sant asalaamaaleykum nan da bayo bisu jamaïcain bi te nga nekk ci combat boo xamante ne combat royal tey ñu gis nga ñëw waaw waaw man dégguma sax lu ngeen wax man nga nekk ci bis bu rëy nga bëre événement boo xam ne sa diggante ak ki nga xamante ne mooy Siteu nga ñëw ci événement waaw si Jamaïcain laa koy laaj si Jamaïcain laa a laaj ak combat bi nga bëre dayoo mu am nga ñëw tey si bisu Jamaïcain bàyyi lépp ñëw. waaw Jamaïcain suñu nit la xam nga lu ñu naan lu mu doon ñàkk mu am. dëgg la ñoo fi waroon jiitu mais xam nu mu demee la xam nga. dëgg la awoon ay yu xawoon xat si gi loolu moo tax. dëgg la mais Jamaïcain moom suñu nit la. yaakaaroon nañu doo am ah moom dox li war a dox xam nga Jamaïcain suñu nit la ku xam Jamaïcain xam ko ak Modou. ba daana xam xew moom mooy loolu quoi. mais Modou da nga moo tax wala la. waaye waxu lamb wax dëgg yàlla waxoon na ko man li ma koy laaj Modou. waaw man question bi lay laaj rek mooy. <laughs> maanaam dama seetlu boo ne dafa fonk ay nitam man seetlu boobu laa la dëgg la Modou maanaam bu amee combat mu ñàkk combat gis naa ko ci ngénte Mansour Ba nga ne ca sa veyu combat ak Ama Balde ma gisaat ko tey ci takku jabaru Jamaïcain nga ne sa veyu combat ak Siteu say nit jaral la ngay déplacer maanaam sa digganteeg sa nit yooyu lan la ba tax nga fonk leen fonk googu. waaw waaw nit moom amul ay nitam. koo xam ne boo jugee xam ma. ñoom ñëpp ñu jóg. wax dëgg yàlla bu ñu xewlee. mënoo lu dagg sa yite yëpp ñëw teew lool rek moo war a teew bi ñoom maa ñoom du tey quoi mën naa ne sax du làmb quoi na yàgg na a sonn ci yow ma gis ko mu yàgg a sonn ci yow parce que lu ma fekke la xaadi mu ngi ne taxaw loolu fekke na ko ba ma koy dégg mu naan jamaykee bu xare ñëw di woote ci ay rajo rayante ngir mu ñu koy daj ngir mu tey nga gis jamaykee boobu dem ba nekk promoteur yi dëgg ay événement dëgg ba dëgg mbër moo bëri tey jamaykee boobu ak niveau bi mu yegg si tey lépp bu ko xoolee mën na ah, sant yàlla rek képp kuy ànd ay nit moom bëgg nga ñu avancer ba fu nit bu baax di yegg ñu yegg boobu baax na tey xam nga bu ñuy dem bay tëgg làmb loolu sant yàlla la xam nga dem bay parce que Jamaïcain moom vraiment lu mu am ci làmb rek da ko da ko cee liggéey daj na nekk ci làmb débat sax ma tooñ ko quoi nan ko temps yi ngay sol laa laafa jamaïcain bi quoi sa kër yu sëgg boobu yaa ngi ñuul kuku waaw ba tax yooyu yëpp rek làmb da koy fay borom ba tax na ay nit ñu baax lañ bu ñu gis ñu avancé ñu luñ def luñ sant yàlla te lépp lu leen mën a accompagner tamit dañ leen koy accompagner vraiment. waaw mais man mooy bis bi bëri ni mu toll. mais lu lu may ragal ci nit ñi. Ah? ah mooy lu may ragal ci nit ñi nit la mais xam nga nag du n'importe maanaam du xew mu ne moo la yëkkati. mais lii jafe-jafe du lu mën a ñàkk. lu mënta ñàkkal te lu mënta ñàkk faaw mu am. loolu moo waral mais Modou yaa ngi xool ko ba tey. dernière question soxna Fatou xam nga d'abord d'abord ñu leen di ñaanal heure ménage bu ñaan yàlla mu barke sëy bi def ci njaboot yu bari ta barke parce que comme ni ñu rek sotti sëy def ci Fatou te fan de club bi la nekkoon génération xarañ nekk ci ku leen yàlla boole ba tey ba tax na ñoom kenn ku ci nekk rek jaroon na tax ma déplacé ñëw loolu nag moo war a teewaay fii di wax rek yàlla barke sëy bi rek ñu secret bi lan la ah mais yàlla ñu boole rek famille la famille la aha mais jotaay yu bari la xam nga ay nit bu ñu dajee dañuy xamante yàlla te bu yàlla dogal seen diggante rek xam nga dañuy dañuy dañuy sëy xam nga vraiment ma loolu. yaa ngi xotteeku ba léegi wala xotteeku. waaw yàlla na ko faral dimanche.